thème bu màgg lool muy asheikhul xadim arabbaniyul azam sëriñ Tuuba ni mu doonee nitub yàlla gu màgg tomb bi ñi tur wi màggee li mu ëmb noonu lay màggee ndax sëriñ Tuuba jenn yitte rek lañ ko xamee wala moom la mas a am muy boroomam lu mu laal lu nekk rek lu koy jottale diggante ak boroomam la waaye ki ñu war a defal waxtaan wi tey muy sëriñ Ahmadou Mbakke di ku ñépp xam ci waar wi mooy jottali njàngalem sëriñ Tuubaa ci anam nga gën a mat te gën a rafet yaakaar naa bu ñu ko tuddee dana néew ñu koy umpale ci jotaay bi kon du aajo woo ñuy dugg di xamle mooy kan ndax mel na ne gët yi miin na ko te it dégg yi yaakaar naa ne war na koo miin bu baax a baax kon moom moo ñu war a defal waxtaan wi muy tomb bi nga xam ne mooy Serigne Touba ni mu doonee nitu yàlla bu màgg ni mu fas tëralee waxtaan wi nag mooy dafay tënk tomb bi rek ci diggante sëriñ Tuubaa ak boroom mu mel ne day doon ab àggale ci tomb bu ko jiitu woon muy diggante sëriñ Tuubaa ak yonent bi ginnaaw bi mu ci diggante sëriñ Tuubaa ak yonent bi ko day jàll ci diggante sëriñ Tuubaa ak boroomam tomb yi mu tënk waxtaan wi nag ba ci njëkk mooy dana xamle baat yi nga xam ne moo tënk turu Maodo bi baat bu ci nekk Cheikhul Xadim mu taarif ko rabbani mooy lan mu taarif ko doo ko jàll nag ci biir mawdon bi wax ci tawxiitu sëñ Tuubaa wéetal gi sëñ Tuubaa wéetal boroomam jàll ci wax ci ubudiyatuhu mooy doon gi mu doonoon jaamu yàlla dem ba jeex takk ci jaamu yàlla dëggal gi mu dëggal ak ubuudiyatu ci ak dundam ñetteelu ñeenteelu tomb bi mooy mahabbatuhu li rabbihi mooy bëgg gi mu bëgg yàlla moom sëñ Tuubaa beneen tomb bi mooy su ko waxtu yu mayee mooy li ko yàlla fayee nag ci wéetal gi mu ko wéetal ak jaamu gi mu ko jaamu ak bëgg gi mu ko bëgg tomb bi ci mujj mooy cant gi sëñ tubaa cant boroomam ci xéewal yi nga xam ne xéewale na ko ko ci fay yi ak ci may yi kon du ñu guddal tomb yooyu ci la sëñ Ahmadu war jëmale waxtaan wi kon dañ koy bàyyi dalal ko ñaanal ko suñu boroom may ko tawfiq ba li mu bëgg a jotal lépp ak li mu bëgg a leeral mu jotal ko na mu ko bëggee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 ci jamono yu sell yi ci biir mbooloo mu sell bi di ndokkeel bu baax it eh, daairatu muqaddamatul xidma wala muqaddimatul xidma bi nga xam ne dañoo taxaw ci liggéeyam bërëb bu sell bi wuuti ci murit yépp di liggéey liggéey bu am solo bu mucc ayib boo xam ne sedd na xol murit yépp ñu leen ci ndokkeel di yàlla mu nangu ko te gën leen cee defal tawféex ginnaaw loolu ni ko Cheikh Abdoulaye waxee waxtaan wi mooy ar-rabbaniyul a'zam danañ jéem a xam ne baat yooyu lu muy wundu kan mooy ar kan mooy ar rububiya itam mooy lan ak luñ ci jublu doog a dugg nag ci sëriñ bi ni mu ko dunde ak la ca topp insha allahu taala duñu sori itam ci delluwaay ak kii ndax xëy na waxtu yu xat na te dañ ci waajal bari na jàppuñ sax danañ ci xaj rabbaniya boroom xam-xam yi niñ ko tekkee bari na am na ñoo xam ne dañ ko jëmalee ci wàllu xam-xam nike sayiduna qataada ak ku mel ne sayiduna abdullah ibnu abbas mu jëmale ko ci fiq jàppe mooy ab faqih rek am ñu ko jàppe mooy ab aalim nike saïd ibnu jubair ak ñeneen ak ñeneen am na ñoo xam ne rabbaaniya dañ koy jëmale ci wàllu tërbiya tërbiya ak jàngale ak defar nit waaye nag buñ ko waxee noonu li ci nit yàlla yi xaw a jublu moom lañ ci gën a jublu mooy diggante nit ki ak boroomam na mu koy dundee ak dox ba muy dox wuti ko ak la koy jëmmal ci dund ak njaam ak cofeel ak seey ci boroomam subhaanahu wa taala loolu lu meloon lañ ci jublu buñ ko waxee fii kon rabbaaniya pour woowu li muy tekki mooy askan gi ñuy askan jaam bi ci boroomam mu di ko jaamu ci xam ak cofeel ak wéetal ko bu demee nag ba wërlu melo yooyu ñu wax suñu boroom day sotti ci moom ak leeram ngoo xam ni da koy def mu jikkoo jikkooy rasulullah sallallahu alayhi leeru rasulullah sallallahu wa sallam itam ne ci moom ci jëmmam bu seeyee nag am ak leer boobu seey nag ci biir leer yooyu lañ ko tudde rabbaani mel ni ak weñ buñ ko tegagul ca xal ya day mel na mel buñ ko dugalee nag ci biir xal yi ba mu lakk ba xonq ba mënatoo ko xàmme xal yi mu mujj nag di xal daanaka dañoo rab ba nga xam ne dañ koy askan ci xal ya donte du xal itam ci cosaanam dëgg-dëgg bu dee rab bu nag mooy sunu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne moo sàkk lépp moom ñépp boole kàttan yépp di koo xam ni kàttanam yëmut fenn nga xam ne xamal na nañu boppam ci biir alquranul karim ci bërëb yu baree baree bare wax ne qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yuulad wa lam yakun lahu kufuwan benn buur la boo xam ni moom kese mooy buur moo sàkk lépp jógewul ci dara te amul kenn koo xam ni itam bokk nga ak moom ci dara ci beneen bërëb wax na ne huwa allahu alladi laa ilaha illa huwa aalimu alxaybi walshahada huwa arrahman arrahim huwa allahu alladi laa ilaha illa huwa almaliku alquddus alsalaamu almuminu almuhaymin alazizu aljabbaru almutakabbir subhaanallahi ammaa yushrikuun huwa allahu alxaaliqu albaariu almusawwir lahu alasmaau alxusna yusabbihu lahu maa fi samaawaati wal ardi wa huwa alaziizu alxakiim di buur bi nga xam ne mboolem léppi kattan moo ko dajale léppi xam-xam moo ko dajale dara tëwu ko moom lépp sàkk lépp xam lépp man lépp mboolem tedd nga itam ci moom la dajale wax na ko ci alxuraan ci anam yu baree baree bari sëriñ bu mag bi itam leeral na nu ko kii mooy kan wax na nu ne laa rabba gayruhu wa an siwaahu gani lahu gani lahu ftaqara man buur la boo xam ne kenn melut ni moom te soxlaalul kenn dara te ñépp a ko aajow sëriñ bi wax na nu ko ci bërëb yu baree baree bari wax nu ne anna ilahana al ilahu al ahadu alsamadu almukarramul multaxadu wala mukarrimul al mukarrimul multaxadu wala ilaha gayruhu wala shabih lahu wala lahu nadirun ya nabi wa jalla an saxibatin wa waladi wa walidin wa jasadin wa xaladi wa an musharikin taala fi lfial wa gayrihi tuuba li mudmini fial al awali al axiri min gayri ibtida wala intiha wa mukrimun li di ihtidaa muy dem mooy suñu borom buur la boo xam ni moom moo maanaam mosu fee jug te lam nekkoon it ma nga ca amul doom kenn du ko askan itam ci melay doom aadama yeeg li ñuy am ak la ñuy ñàkk bokkut ak ñoom dara itam mooy de mooy mooy def lépp itam mooy dogal lépp itam mooy buur bu kawe bu sell bi nga xam ne ku lu waay am moo la ko jox te jamono tënk ko bërëb tënk ko jógewul ci dara dara mënu koo gaw itam ba tax na sëriñ bi dara wax ne subhaana man idrakuhu muhaalu wala ajsu an idrakihil kamaalu kon kooku ci gàttal mooy suñu borom bi nga xam mi nga xam ne mooy benn ci baat yi nga xam ne dañ ko waxtaane daa wax ne ne rabbani mooy sëriñ bi diggam ak boroomam subhaanahu wa taala kon wax nañ liñ ci jublu ci diggante boob yi ci gàttal rek mooy dund gi mu dund eh, li ñuy wax ubodiya ak mahabba ak tawxid ak jaamu yàlla ni mu ko defee ak bàyyee boppam sunu borom tabaraka wa ak maani yooyu yépp danañ ci ñëw diggante boobu yi lañuy lañuy junj nu jeexale taarif yi ci xam le sëriñ bi nag mooy kan sëriñ bu mag bi nag moom it xam le nañ ko ba tàyyi ci bërëb bii du ñépp a ko xam mooy borom dund gu barkeel googee nga xam ne mi ngi feeñ ci bisu fukki fan ak juróom ci weeru saabaan di bis boo xam ne nit yàlla yépp dañoo maase daa ñaan ci lu ñuy tudde ak tajallil azam ilaahi bi tajallil azami fi nisfi min shaabaanina almukarrami an nakshifan min albala ma naalamu bilfadli walmanni wa ma la naalamu cheikh maal ay nee ni ca naatul bidaayaat gis nañ ko ba mu indee ñaanu nisfu saxabaan bi mu ñaan ci tajal lii buy am mooy leerug yàlla muy wàcc ci guddi googu ndax nit yàlla yépp dañ cee mas dañ cee mas di ñaan di ko bàyyi xel di ko dundal guddi googu ndax am na leer bu ci wàcc ca naatul bidaayat ba mu wax dafa wax ne ilahi bi tajalli al aadami fii leylati nisfi min chaabaan al mukarrami te yufraqu fiha kullu amrin hakim muy ñaan nisfi chaabaan kon tajalli al aadam boobu yi di xew ci guddi googu yi ak yi nga xam ne ci bi feeñ nit yàlla yépp yàgg ko màggal yàgg ñaan ci barkeb leer goog yi leer goog yi gàttal gi mooy amul leer bu gën a kawe ci li nu xam bu wàcc ci bis boobu yi ci guddi goog yi guddul leeru sëriñ bi sëriñ Tuubaa leeru kese la woon wax na ne azhaba man kulliyati anaara suñu borom coob moo leeral moo ko def mu dig leer wax ne nu nawara zahiri wa batini aljamil kulliyati ilayhi bil xusna tamil wax ne leeru kese la woon moom sëriñ bi wax na sax ne du leeru xol ak biir rek biti gi itam saay rek baatin la ni wax ne azimuhu lin qaada fi agraari wa jussati nawara kal agraari mboolem yi bàyyi ko ci jëmmam ju sell jëmmi jëmm ji ak ruuxam gu sell gi ak xol ba ak mbooleem yi nga xam ne moo mooy bàyyi ko ci moom ci ay aaraat lépp ak leer la nawarta qalbi thabitan muwaxida ak li wax ne bayyana li man laa yazaalu fatira tab tabyina haadin nawwalal xawaatira ba ci yii toq ci xelamam man lépp sëñ bi leer la jëmmam leer la ay jëfam leer la yii toq ci xelam lépp ak lu bàyyi ko ci moom lépp ak leer la moo tax leer bu leerug sëriñ boobu rek mooy li feeñ ci bis boobu kooku kon mooy si amul Bamba da mi nga xam ne suñu boroom ko waajal waajalal ko jëmmam waajalal ko jamono ji muy feeñ ak bërëb yi muy feeñ mu nekk koo xam ne dafa wax ne sunu boroom ci boppam moo ko yaral boppam rabbaani al xayu alladi laysa yamut suñu borom moo ko yaral boppam tërbiya ak suñ borom la am loolu li muy li muy tekki mooy dafa feeñ rek meloy mbaax ak meloy njub ak meloy meloy sell yépp daje ci moom rabbaani al naafiu al wahaabu ashkuruhu maanaam ba tey bay ju mel te tërbiyeeg suñu borom daa wuuteeg tërbiyeeg keneen daana wax sax ne tërbiyatul xayi alladi laysa yamut laysa ka tërbiyati xayil sa yamut suñu borom ak tërbiyaam day matale day mat day ànd akum jag ak jubbanti boo xam ni day yomb lool ci borom kon kooki mooy sëriñ bi muy koo xam ni bi mu feeñee rek dafa feeñ rek mën nañ ne seey ci boroomam subhaanahu wa taala doogu wuti yàlla bëtam musu koo teg wala mu jëmale ko ci lenn bu may suñu borom tabaraka wa taala li Cheikh Mouhamadul Bachir wax ne xuliqa rabbaniyan laa yaarifu l axyaar ndax axyaar mooy jamu xayr xayrul daali lu dul yàlla musu koo xam musu koo dund dafa feeñ rek di ab rabbaani yi ñuy waxtaan garabu tawxiid muy wéetal suñu borom dafa feeñ rekk mu daldi sax ci xolam dal di gaaw a jebbi meññi nag muy jëmm jox xam ne mosul a def lenn lu ko amul njariñ ba mu feeñee itam la dogal lépp lu may suñu borom daana wax ca njëlbeenam ne lépp loo xam ne ngir moo xam ne weesuwul adduna ji dem alaaxira mbir moomee du lu am solo fi man mu nekk koo xam ni ci jaamu yàllaam waxtaan nañ ko ba tàyyi waaye da ci gis yu yéemu yoo xam ne ci moom rek nga ko gis mooy jëmm yoo xam ni jamono yi mu doon dund ak la muy metti metti ak jafe-jafe yu amoon yëpp ak àll bi mu nekkoon nga xam ne mbirutoon nii booba ànd ak loolu lépp benn yoon la mas tiim ci dundam te la ci gën a yéemu mooy julli gune ak njàpp boppam la da la ko daa defal yàlla nattoo woon ko ay xeeti ay góom ak yu ñu demee nga xam ne danaa am ci jëmm ji waaye loolu daw ko tee tiim li ñuy wax gi nga xam ne fuqaa yi mayee nañ ko ci yu ma noonu bu la dalee te loolu da ko daa dal lu baree bari daw ko def fi ne dawut bu ko daree ba sëñ Basiir wax na ne fekke nañ muy jàpp di bés ak taab boo xam ne da ko fekke woon deret ji di génn ak dëtt ji mettit bi ñi ko fekke sax mu metti ci ñoom bañ di ko ci yërëm waaye muy wax ne suñu borom muy wax taab bi ne ko yow maa yow ay yàq yàlla danoo sant nu war a jàpp war a julli kon nag lu mën a xew kaw ma def ko moo xam nga deretal wala lu la neex yaa yaa xam di jëm joo xam ni mësula julli ci dundam lu may ci njëlbéenu waxtu suñ bisul nee na am na benn naaru gànnaar bu mas a nekkal boo xam ni waxtu yi daa jot jamonoy tàngoor ak bëccëg nee na naar bi di ko wax teenoo xaar ba ci kanam mu ne ko déel man fi ndigal li agsi rek damaa bëgg foofee laa koy daal defe di koo xam ni daraa wax ne man du ma jëfandikoo ay seel du seel yi diine du seel yi àll seel yi diine nee na mooy mel ni jàpp nga julli ci ñaari ñaari ñaari julli yu bokkul tisbaar ak takkusaan wala timis ak gee nekkoon koo xam daa dëkki woon koor daanaka te ak dogam amut solo li muy dogee daanaka wisaal la daan def guddi itam da ko daa dundal guddi gépp mooy ki xam ne mësula am guddi gum deful xiyaamu layli te day tàmbalee moom ca gee ba fajar xiyaamu layli noonu la sëñ Basiru melal ko ci gàttal ne nahaaruhu saa'i wa layluhu qaa'im laa yafturu an aldikri waltilawati aanaa alleyli wa atraaf annahaar raxabatuhu waaxida wa garaduhu waaxidu wa huwa rida allahi taala wa rida rasulihi sallallahu alayhi wa di jëmm joo xam ni bëccëgam yépp koor la guddeem yépp taxaw di dundal guddi yi rek mosula dog ci tudd yàlla tudd yàlla moom da cee da cee sos woon ne daa bokkoon ci moom dañ ko ko mooñaale moom mosula juyoog ndigalul suñu borom sat na ci yàlla ba tey di wax ne allahu tahara fuaadi wal jasad min kulli isyaani ak mooy yàlla ak mooy ndigalam loolu moom yàlla da ko ci musal waxuma la lu mel noonu sax waaye lam anxuma fi yufi mooy lu amul njariñ lu ko amulul njariñ njariñul ëllëg ak diggam borom mos ci mos ko jug ay jikkoom itam mën nañ ko gàttal ci ne mooy jëmm joo xam ne xol bu set la yor bu sell bu yéene ñépp jàmm yan wi fuaadil xayra lil xalaaiqi waa ah, nee na man sama xol daa yéene jàmm mbindeef yépp du nit ñi rek de ci joa mooy jëmm joo xam ne mustaray aw mellantaan xisa boobu ñuy dégg ñu naan dafa dóor tubaab bi kii bi booba tubaab bi da ko fekk muy ñaan mu jël xaalis ba fekk dajale nañ ko mu xaw bari tuuti mu teg ko ci loxoom wax ko ci ay wax mu sànni ko nag far mu dal tubaab bi waaye du cee gën da jublu woon a dóor moom sunu borom ci moom moo ko tegtal boppam dalaltanaa bika alayka yaa raqib dallani allahu alayhi fa araf qalbi bihi yàlla ko xëccal boppam tegtal ko boppam wax na ci njëlbeenam ci xasida yu njëkk yaakaar naa ne wax ne wa kuntu qablu xaaifan mudtarra munjaziban an il baraya turra multajian ilayka bil muxtaari bi afdalil xidami dastidaari fa quttani bihi ilayka yaa jamil mooy jëmm ju koo xam ni dama bari lool tiitaange waaye li muy ragal lépp jenn benn ragal la mooy suñu borom rek la ragal loru lool itam jëm ci suñu borom bàyyi mbindéef yépp wut si la wéeru ci yow nga wommat ma nag jaare ko ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maanaam suñ borom moo ko wommatal boppam léppam suñ borom moo koy wommat ni ko xëcc yaquulu nafsi wa hawaaya la am ay bëgg-bëggam nag ak yi toq ci xelam yépp suñ borom euh, da ko ci xëccee waaye nag da ko tegtal xam nga suñ borom moom daa am ab jaaruwaay muy rasulullahi sallallahu alayhi a maanaam yaqulu ni llahu ila muhammadin wa qaala li muhammadun li samadi sayidna muhammadin wax na fa mu ko jaarale te mooy dalla ni llahu ala muhammadin wa qaala li ahmadu dikra samadi alquran la ko la ko la ko jaarale comme yooyu ay waxin la yoo xam ni boo déggee wenn bayit ci yooyu rek yem ca man maanaam du mat moo tax ci cosaan kenn rek moo ko muy suñu borom tabaraka wa taala wax ne dalaltana bika alayka yaa raqib yaa raqib dallani allahu ala illahi kama dallani alladi alayhi ne kon suñu borom moo ko xëcc waaye suñu borom daa am yoon muy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam suñu itam ci alquran la ko jaarale mooy jëm fi bàyyi muy jëmm joo xam ni mbooleem ñu jamono te ñuy ay borom yi xam-xam te jonjoog moom yéem nañ ko mën naa ci misaal baabul Cheikh mi ñu xam ne borom xam bu mag di mu xaddis bu mag di usuli bu xam bu mag di mu arrix di shaair wax na ne shahida tawaaifu ajmacuuna bi kawnihi barran kariman qaalitan awaaha mimman yara nafa al anaami faridatan fi dahrihi wa daakirina allaha yarda ida jarat al umuur musliman ilman bi anna ilahahu ajraha laa taxjub al asbaabu anhu xaqiqatan intaha fi dulmaatiha mantaha wax ne mooy jëmm joo xam ne mbindeef yépp seeral nañ ko ak mbaax ak sell te dara doxul diggam ak boromam benn kiiraay itam mënta mënu koo yiim ba du gis màggu borom bi boromam bi soo tajarada lillahi al azimi musammiran wa kaana lahu an kulli gayrin tajarada tajarada ibnul mualla lu mel na la wax wax ne ko ala ayuha alqutbu alladi laa yaruquhu an illaahi kawna maanaam dara mën mënta foofu la ñuy dugge kon ci tomb bi njëkk te mooy ni mu wéetale suñu borom kon moom dafa feeñ rek euh, di dund dafa feeñ ci njaboot boo xam ne ñu gëm yàlla lañ di ay nit yàlla yu mag waajuram Cheikh sëñ Mamadou Andi Sali di xutbu boo xam ne ñëpp xamoon nañ ko moom sëñ bi sax seeral na ko xutbaani ya boobu kon ci njaboot googu la feeñ waaye bi mu feeñee itam moom dafa feeñ rek dal di dëgmal boromam suñu borom ko mu teel am ngëm gu dëgër gu mat ci suñu borom ndax wax na ne suñu borom ci moo ko sa tawxid laqanani llahu lala ilaahu tawxida laa ilaha illa allah maanaam wéetal suñu borom doo wax ne mooy sama diine diine tawxiidu ilaahi naasi maanaam wéetal suñu borom mooy diineem diine tawxiidu ilaahi bittibaa man qaada lii li rabbihi bi tuuli baa diine imaanu bi dil wujoodi ne ngëm yàlla ak nañ ko war a gëme lépp loolu moom da cee feeñ nekkoon ci sax ci doon ko dund mu doon léppam itam dana wax sax ne man sama faggutif yépp weesuwu tawxid kas bi ya tawxidu ilahiyal jahil ngànnaay li mu doon xeexe itam dafa wax ne mooy wéetal suñu borom ngànnaayu tawxid sayfi alladi yafri tulaaman thallathu tawxiduhu ba dara àgg sax ci wax ne tawxid moom bu amee borom man maa ko moom mallakani tawxida rabbil ahad maanaam ci moom la fekk baax ku ko amit xëy na ci moom nga koy roye moo tax baatub laa ilaha illa dangeen ko gis ci mbindam mooy waxam moom qawliya laa ilaha illa allahu muhammadun muhammadun rasulu min mawlaahu léeg-léeg mu ne leer gi nga xam ne moom lay niitoo làmp boobu mooy leeru maanaam laa ilaha illa allah daw iya laa ilaha illa allahu muhammadun arsalahu al ilahu bërëb yi mu ne itam bërëbi tawxid la ndax nee na ila mawaadii yaquudu lahu safaa laa ilaha yi mu yàlla dafay sotti leeru cell teg laa ilaha illa ba tax na ak dafay dafa yomb nangu dafa yomb dafa naat te barkeel te neexa amee dara bërëbam yépp moo tax mu daa wax ne fuzutu bi laa ilaha illa xolam lenn rek moo ko fees mooy wéetal suñu borom lam yalxu qalbi gayru tawxidil malik kulli muwaxidun lidil mulooki léppam daa maase di wéetal suñu borom tabaraka wa taala te suñ sëñ bi maanaam gëdd gi mu jox suñu borom màggal gi mu doon màggal suñu borom kenn fekk ko ci dafa am war ma ju rëy yu mu ëmbaloon suñu borom tabaraka wa taala yoo xam nit ki mën naa gëm du ci àgg loolu mooy lu mel ni wax ne azamtu wajhallaahi min aami asas xam ne noonu la doon dunde te ni mu ko warmaale lépp suñ borom lay lay warmaal ak lépp lu taq ci moom moo tax jëmmi boole suñu borom dara li ñuy wax bokkaale loolu moom mësta bokk ci mbiram mësu ko xam mësu ko dund mësu ko nangu itam moom danaa wax ne uwaxidullaaha wa lastu ushriku shay'an bihi xiina siwa yushriku jamono jëm dund ñi doon bokkaale yàlla dañoo bari rawatina tubaab yi ko jàppoon dëkk ci bokkaale suñu borom waaye mënutoon a xajoo bokkaale suñu borom yéen léeg-léeg gis nga mu wax ne tuubu lahu watruku taslisa wal adada maanaam yéen lu mën a xew lim bi daal moom ay yàlla beneen ñaari yàlla ñett yooyu moom dañ ko war a teg fi suuf moom loolu wax na leen ko ba tey ba mu nekkee seen biir moom dana wax ne man dama bëggul kuy boole yàlla dara farraxani kawnul ilaahil waaxida wala uhibbu mushrikan aw jaaxida moo tax dafa dañtalu woon ci lépp loo xam ni mooy boole suñu borom ak dara te suñu borom sax moo ko ci setal moom barra anil xaqu min al moom dafa sellaloon suñu borom dababtu li gayrillaahi maa lam yaliq bihi waaw lépp loo xam ne yëlul ci suñu borom daal daqal naa ko ko ba du ko jege mukk tanzih boobu ci la nekkoon moo tax diineem daray boole yàlla boole yàlla dara bu nekku ci wax na ne haraba kufrun maa shirkin wa fusuuq li gayri diini maanaam bokkaale day daw sama diine moo tax nun tawxiid gën a kawe ca la nekk sëñ bi daal di wax ndax dina sëñ bi waa nekkoon rek ca sëñ bi rasul lay sax nanguwul nga boole kook suñu borom maanaam rasul lay da nga koy jox cëram ba ko yàlla jox jox sunu borom danaa wax ne man shakka fi kawn ibni abdillahi abdan rasulan fali naarin yanqalib rasul lay sax du nangu nga jox ko loo xam ne suñu borom ko moom ndox na nag ci kaw ay teggin nag rasul lay bul jàpp ne ñàkk na dara moo tax sëñ bi ni muy wax doo du nekk di wax ci rasul lay mel ne ko daa amul léeg daa amul le suñu yonte moom ñëkku dara moom ndax waaye nag lam koy jox lépp nag du doon moomeelu suñu borom ko wa taala ndax sëñ bi dara wax ne jëmmi boole yàlla ak dara shirk dara wax ne sawara la fa shirku fil yi mithla naari wa kullu dambin eh, gayri shirkin yuxfaru wa shirku laa yuxfaru laa yukaffaru nga xam moom suñu borom du ko du ko du ko jégale illa bi na nasuuxin mooy tax ñu jégal la ko waaw wa man yusallis faridan malikan samadan fa jaahilun kii bokkaal yàlla kooku daa daa réer daa umpale moo tax sëñ bi sax dara wax ne maanaam yaqini yal yaqinu an ushrika bi shay'an fa kullu mushrikin lam yantabi maanaam man dama am tawfiixi ne dara duma ko booleeg suñu borom ndax mushrik kii boole yàlla ak dara kooku daa xamul li xew lam yantabi mooy daa xamul li xew ni ko ku baax kii waxee Cheikh Mouhamadou Mountakha moo tax tubaab yi mu delloon te xamuñu li xew yéena leen ba tàyyi ci bëgg ñu xam li xew nee na nabbahakum wa karrar wa karrara tambiha wa zidtumul ishraaka wa tashbiha allahu jalla ahadun assamadu alladi huwa al ilahu wax naa leen ba tay yee leen ba tay ngeen di gën a wéy rek ni ko boole moom suñu borom ak yeneen lam yakun mawludan wala bi walidin walam yakun kufan lahu fi xaalid moo tax muulu kenn rek lañ gis Sëñ Tuubaa di ko def mooy mushrik ki nga xam ne day boole yàlla dara ne wax na leen ko uffin li qawmin sallathu ya ahad sallasuuka yaa ahad taasan liman yanmi ila llahi l ahad alsamadi alfardi almubidi man jaxat tawaludan fa qul huwa allahu ahad tasrifuhu anni min min yowmi lahad tabban lahu tabban lahu uffin lahu waylun lahu waylun lahu tabban lahu <laughs> moom nga xam ne sëñ Tuubaa kenn ñëpp la yéene jàmm waaye gis nga koo xam daal ñi nekkoon ci wetam tubaab yooyu di di bokkaale suñu boroom di ko wax di wax ñaari yàlla ak ñett ak gis nga lim leen daa wax moo tax jihaad xeex bi muy xeex itam ci jihaad foofu rek la ko wanale mooy boole gi ñu boole suñu borom ak dara nga xam ne dafa xam ne man damay jihaad ak ñoom ci def ay xasida yoo xam ni xasida yi am xasida yoo xam ne dañuy dañuy am ab liggéey zintu makaatiba te duumu raasida kulle muaadi xasida goo xam ni yitteem mooy fuklu ñii noonu yàlla di ko booleeg dara ngir di leen indi li jafe-jafe la loo xam ne zintu qasaayida mujahidan la daa man nasabu lillahi xumqan wala daa ah, moo tax mësta maslaa ak ñi nga xam ne dañuy boole yàlla ak dara ah, li wax ne wala udaahinu walishhad bi anni laa udaahinu mushrikan xalilan xabiban lilladi karramal jamba waaw ah, wax na ne qataltu man ilayka yansibul walad ki nga xam ne day wax naan yow am nga doom yow suñu borom tabaaraka wa taala kooku faat naa ko léeg sax mu ne dabaxtu dabaxtu xulfan thalathu yow ma bisu bisu dibéer daal faat naa ji benn ay boo xam ne faat gi nag faatu maanaa la Sëñ Tuubaa mësta lor kenn ci loxoom ak ci zahir waaw lañ tabaxoon itam tabax bi yëpp di tabax yi shirk nee na màbb naa ko hadamtu bin yëtal hadamtu bin yëta kufurin wa fusuuq maa bina shirkin loolu wax na ko lu bare bare waaye nag mësta nangu ab jullit nga di ko jàppe nga di koy génn ci diine ji ngir ay kasaaw kasaaw wax na ne wa xaramu takfira da istiqbaali li dem bi fal xufraanu da istiqbaal loolu am na wax nañ ne am na jëmm juma mas a ci moom indil ko benn waaye ne ko kii day sama jaama waaye ne fisaa sëñ bi dana bërit jug tàmbalee julli moom ay rakkaat di julli julli julli julli julli lu yàgg doog a dellusi ci moom ne ko ah, kii de bu fekkee yaa moom na nga xam ne yaa boole moom ndax man kat maa kii noo bokk borom nga xam ne moom dégg gi mu dégg baat boobu daal jóg ngir jéggalu suñu borom moom ci baat bi julli ba suñu boroom jéggal ko te moom suñu borom du ko topp dara waaw ah, moo tax suñu boroom cër bu rëy la ko joxoon wax nañ ne nit mas naa wax fi wetam ne yàlla rek kay buur mu ne ko yàlla kenn du ko rekk yàlla kenn du ko rekk dangay ngay wax yàlla daala fi nekk yàlla daala fi nekk am na naar gànnaar bu ko mas a laaj ne ko bi ngay nekkee ci gaal gi te nag wi wut si la loo yëg booba mu ne ko la man jaam laa boo xam ne bu dara toqee ci sama xel lu may yàlla rek ma am ko dara mës ta toq ci man lu ma yàlla wax ne li ko tee mu daa denc ci poos daraa wax ne poos boo ci dencee diggante ba nga cay dem sa xel dana ne ci lu ma yàlla moo tax mësta denc ci ci ci jiba Cheikh Abdullah daana wax ne lenn rek nga koy jox mu nangu ko mooy alquranul karim moo tax tawxid ju sell jooji ci la sëriñ bi nekkoon tawxid ñaari tawxid yépp nag tawxidul aarifiina ak tawxidu almutakallimiina yépp jàngale na ko ngir gàttal rek dañu ñëw ci tombum ñaareel bi mooy ubodiya te ñetti tomb la mooy ibaada ak ubudiya ak ubudatu mooy jaamu yàlla gi nga xam ne cër yee koy def ak ya nga xam ne xol bee koy def nag jaamu yàlla ak cër yi moom moom wax naa léegi luy tegtale ne ci la feeñ ci la sosu ci la màgg dañ ko mooñaaleeg moom ci njëlbeen soxna maam jaara wax na ne sëñ bésul neen daanako ko nettali ne ko gaa ñu baax ñi day ñoom dafa bokk seen aada dundal guddi gi xiyaamu leen waaye nee na booba la tàmbali te demagul ca daara ja de booba demagul ca daara ja jàng booba la tàmbali bu guddee day dem ca jàkka ja wala fi jullikaayu soxna maam jaara nekk fa taxaw ngir bëgg dundal ko gi boobee la ko tàmbali sama mbokk mu baax sëñ Abdullahi Jaxumpa damaa nett li ne dafa dégg sëriñ Isxaaq Mbakke mu wax ne Euh, dunduk Sëriñ Tuubaa day jëmmal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muy baat bu wér man loolu muy dunduk Sëriñ Tuubaa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wax na ne iyyaka a'budu wa asta'inu wa innahu al-ma'budu wal mu'in iyyaka na'budu wa nasta'inu fa innaka al-ma'budu wal mu'in ay bër yu bari la ko waxee maanaam Sëriñ Tuubaa mooy ko xam ne kenn rek la doon jaam muy sunu borom tabaaraka wa ta'ala wala walastu a'budu dawaaman ghayraka dama dul jaamu keneen maanaam jaamu yàlla mooy diineem diini ya ibadatu ilahi naasi loolu la wax te léppam moo daa maase di jaamu yàlla man léppam ak jaamu la yaabudu rabbi lil jinaani kulli kulliyati aabidatun lillahi bërëb bu mu mase ne itam jaamu na fa suñu borom abadtu rabbi inda man lam yaabuda wa laysa yaabudu maanaam gabon gee mu nekkoon nga xam ne moom ba mu fay dem moom rek moo fa di jullit ci réew ma yépp gis nga nam fa nekke ci jaamu suñu borom ak di jàmmarloog tubaab yi di bañ ñu boole yàlla ak bañ na ko ba sax bërëbam yépp bërëbi jaamu yàlla la wajaal buyuti kullaha masajida ijaal buyuti rabbi ma masajidi saadatan li raakiin wa saajidi sama bërëb yi daal na neex ci képp koo xam ne dafay jaamu yàlla di rukkoo ga sujjoot yàlla kooku yàlla na bërëb yi neex ci moom xam nga loolu kooku ñaan am na solo dénkaane yëpp it loolu la yaa ayyuhan naasu ubudu rabbakum bimaa bihi xayrul waraa jaakum moo tax jëmmi mooy yàlla moom mosu ko nangu danaa wax ne bul topp mukk nit ci mooy yàlla wa bil maasi laa tuti maxluqa danaa wax ne wëlliwu suñu borom foo ko fekk itam du nekk kuy mooy yàlla ba tax na bul topp nit ci mooy yàlla karaamatul wali an laa yaasiya karaama gi gën a rëy mooy bañ a mooy yàlla fii zahirin wa batin ak na sax wax ne defar naa xasida yoo xam ni xam nga xasida nag dinaay wax ne jëmm jii nga tiim nii mooy tekki jëmmi xasida nga nga xam mbir mu ne am na jëmm wa wajadu ma amilu xaadiran amal bi dafa am julli da ko yow boo duggee sa bàmmeel julli day taxaw ni asaka taxaw ni koor loolu yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi yooyu ay jëmm lañu dégg nga ilayhi yasaadul kalimu xam nga kalim bi ginaaw day yëg ak wàcc kooku jëmm la man xasida gi daa am jëmmi boppam joo xam ne jëm xasida gi ngay tiim jooje lay jëmm xasida yooyee nag neen defar naa ci yoo xam ni seen itte mooy képp koo xam ne nekkoo ci jaamu yàlla ñuy jëflante yow ci loo xam da lay jur aw metit ak coona ak ngay jooy waxtu ne <laughs> lu lay jooyloo zintu makatiba taduumu abada mbubkiyee tan man rab rabbahu lam yaabuda waaye lam yaxul mooy koo xam ne musul a jaamu yàlla waxut nag koo xam ne da ngaa day jaam ba mu yàgg nga tayal wala waaye koo xam ne daal musul a jaamu yàlla te musul nekk yàlla ñeen defar naa xasida yoo xam ne ñooñu rek la ñu kon loolu mooy ibaada ubudiyya nag mooy nekk gi mu nekk di yàlla boo xam ne suñu borom seq ko kenn loolu moo doon mas di yitteem wax na ne maraamiya kaw nii abda man yaxfirul ithba càkkutéefu yëpp loolu la wa minhu atlubu kawniyal abda lillaahi muraadiya kawni abda rabbi xadiima man bihi qaadani ba suñu borom tarale ko nag muy abdullahi di jaamub yàlla boo xam ne suñu borom seex ko kenn abdullahi dinaa wax ne yombut bari na ñoo xam ne arrazaq la ñuy jaamu mooy yàlla mi yore wërsëg yi ak yàlla mi yor ajana nga ne bu bu ne woon bàyyi naa ajana yow nga bàyyi jaamu gi moom loo xam loo tax ngay ngay ngay jëf ngay jëf waaye abdullahi koo xam ni allahu moo ko yilif moom ko te séq ko kenn loolu moo jafe kooku wa innahu lamma qaama abdullahi ci yonente bi la ko suñu borom waxoon ak sayidna isa kese ci alxuraan moo tax tawfiix ji mu am ne suñu borom ci moom moo ko tudde abdullahi sammaytani qataan bi abdika alxadim jaaltani abdal ilahi wa xadim rasulika loolu yi nag nekk gi mu nekk di jaamu yàlla seere loo na ko ñépp suñ diwaa daana wax leen rek ne yéen mbindeef yi laay waxal tey mbindeef yépp yaa jumlatal xalqi shhadu lii yawma fiihi yaxuusu lmujrimuuna lawma bi kawni yaddaarini abdallahi xadima abdihi ibni abdillahi muhiba kulli muslimin wa muslima mubghida kulli mujrimin wa mujrima mbindeef yépp maa ngi sàkk ci yéen yow man xiyaam bu ñu fa demee na ngeen ma seeral ne man kat abdullahi rek laa mas ne mooy jaamub yàlla seeraloo na ko sax tubaab yi wax na ne inni uxaatibu nasaara turra fi ardihim li maliki muttarra tayaqanu bi annani lillahi abdun xadimun li rasulillahi wa annani ma ziltu daa tabarrui min kulli man bil kufri doo tajarrui nasaraan yi maa ngi ci seen suuf waaye kenn rek laa yitte woo muy sunu borom tabaraka wa taala maa ngi bëgg nag ngeen seereel ma te xam ne man jaamu bi yàlla laa te dañtal naa ci mboolem bu di kéefër ak li ngeen nekk géejug maa yomba sax seeraloo na ko ko walishhad bi kaw ni abda man yaxfiru damba wa kaw ni xadima al mustafa baxra maa fa rabbuna taala akrim bihi rabba gis nañ mu daa wax ne diineem moom mooy nekk gi mu nekk di abdullahi di jaamub yàlla boo xam ne yàlla seq ko kenn diini yee kaw ni abda rabbi wa xadim loolu wax na ko ci bërëb yu bëri daana wax ne sax ne sama daraja mooy darajati kawni ya abdallahi nekk gi ma nekk di jaamu yàlla dawul nangu ku njort ne leneen la maanaam turam wi ko gënoon neex mooy abdullahi wa xadimu rasuli man danna anni gayru abdillahi wa gayru xaadimi nabi fasaahi ku ma jàppe keneen la yow juum nga waaw loolu yi danaa wax ne moom ñépp a ko xam mbindeef yi xam nañ ko daral wara anni lahu abdun habib mbindeef xam waaye malaayka yi itam xam nañ ko la laqad tabayyana lada al amlaaki kawniya abdallahi lil iflaaki lil aflaaki malaayka yi xam ne ne man abdullahi la jaamu yàlla laa boo xam ne yàlla séquma kenn muqarraboon yi itam xam nañ ko laqad tabayyana lada al muqarrabin kawniya abdal maliki al xaqi al mubin bu ko defee ubudiya boobu nag njaam goo gi nga xam ne njaam gu sell la gu neex xam nga toroxlul sab soppe loolu loolu dañ ko tuddee toroxlu rek baat bi rek mooy nuru ak njaam nii waaye mooy li neex ci kaw suuf tey boo amoon tawféexi sëñ bi gaa yi nga xam ne sëñ Tuubaa rek lañ bëgg boo amoon tawféexi yow dajeeg moom man koo liggéeyal duutu yëgu mettit yow toroxlu ak woyoflu gi ngay woyoflu googu ak neexitu biir moo ci ne loolu la ñuy wax ubudiya maanaam ibadatu cëriye ko la ubudiya mbirum xol la ubudiya nag fi mu feeñee ci mbirum sëñ bi mën naa feeñ ci maanaam wusuuq bihi maanaam mooy gi mu mooy ci suñu borom loolu ci min madahiru ubudiya la bokk te loolu mooy lu mel ni wax wasiqtu billahi taala abdan lahu loolu wax na ko ba tey wasiqtu bi rabbil arsh dil dil afi wal dil juudi wal afi ak ñaan masalan ñaan xam nga ubudiya fi mu feeñee dëgg-dëgg mooy ñaan gi mu doon ñaan suñu borom nga xam ne moom yàlla suñu borom rek lay ñaan dana wax ne ida massanii durrun aw ixtajtu aduhu duaan xafiyan baada man laylu qad nee na lu ma dal rek ak lu mën a doon wala ma am jenn yitte nee suñu borom laay woo ñaan ko ñaan koo xam ni gu sell doon bu nëbbu may bàyyi ba wéet rek wéet moom moo tax ne woo na ko fa wax na ne naadaytuhu jalla lada unaasi taatuhum isyaanu rabbi naasi woo naa ko ba woo ko ca bërëb yoo xam ci bërëb boo xam ni gaa ña fa nekkoon seen topp yàlla gépp mooy di ko moy gis nga ba muy ba muy dajee gaañ ca jeewal dañ ko wooye tubaab yu doy waar yi nga xam ne moom booba moom lu ne mën nañ koo def te du mujj fenn ñu woo ko mu war a génn këram ñu nar koo génn réew mi te waxuñu ku foo jëm ci tooñ lépp ci tooñ zalamtumul abd alladi laa yantaqim li nafsi axrajtumuhu min diyaarihi bi laa xaqin maanaam leen dara ñu woo ko waaye keroog ba muy jàmmaar la ñoom te booba moom kese la tubaab yi ànd ak ay soldaar ak seeni fital ak yëf waaye gis nga doo xam ne naadaytuhu bi yaa waliyu yaa nasir du noonu la kafaytani iblisa inda jeewali maanaam suñu borom rek lay woo suñu borom moom yi nag da wax ne moom kese laay tàllal loxo waaw ilayka yaa xayra wahaabin madatu yadi sama loxo yow rek rabatal te xam naa ne sa bunt du tëje wa baabullaahi lam yakun murtaja du ma tàllal keneen ku ma yow loxo katabtu li shukri anni laa amuddu yadi illa liman lam yakun kufan lahu ahad waaw dana wax ne sama yéene mooy foo fu suma yéenee tàllal loxo keneen ku may suñu borom nawaytu anni laa amuddu li ahad siwaaka sarmadan yadayya yaa ahad fu su ma yéenee tàllal sama loxo njëriñ ji bi mu fi nekkee li ko teewoon a ñëw ci tubaab bii li ko doon teewoon a seet si ñëw ci bërëbam bu sell bii nga xam ne moom la moo ko gënal ci bërëb yi du won dara lu may nanguloon a ñaan tubaab yi ñëw fi gis nañ leetar boo xam ne mi ngi ci eh, mi ngi ci téere yi ñu bari teg nañ seen bët kili ay mbokkam yu baree bari ak kilifa yu bari signé ko doon ko ñaanal tubaab bi ngir ñu may ko mu ñëw mu ñëw Touba te boobu sëñ bu ñaanoon tubaab yi may nañ ko dañ ko may ay ginnaaw sëñ bi nangu tañaan tubaab yi ñëw nanguñ ko may loolu rek moo ko fi teewoon a ñëw moo tax dana wax ne man maanaam tàllal keneen loxo loolu koor laa ko def damaa woor ci bàyyi tàllal loxo keneen ku may ku may suñu borom yaa rabbi inni badatul yawma yadi ilayka wa arumu sawma an maddiha ila siwaaka dana wax ne tàllal loxo keneen ku may suñu borom loolu ak ñàkkum xel laa ko tege laa ko teg damay jéglu ci baat bi li mu wax ne maddu yadi li xayri rabbil ak li xayri rabbil akrami ma al wasilati lahu al muxtarami azunnuhu fi lbaxri waqta gurbati xumqan léeg-léeg mu ne junoon maddu yadi li xayrihi indi junoon maanaam ñàkkum xel la ak ñàkk ànd ak sago léeg-léeg mu ne dalaal la ak réer la maddu yad yi li xëyri dil jalaali indi min mu ne ictidaa la ak jalgati la maddu yadi ila si wal muxni fi sirri wal alani indi ictidaa mënoon nañ joxe misaal ci ay ñaanam ñaan bu sell la mooy ñaan gi gën a nga xam du bàyyi dara te ubudiya da koy fees loolu waaye ñaanam yépp itam lu baax la fi ne tey li mu ñaan mooy gën a jege suñu borom rek daanaka lay gën a gis nga léeg-léeg mu wax ne an ka raditu daxtirabin rajiya min ka fii dal yowmi yaa wahaabu yaa man lahu liyaabu waldahabu wilayata gën a jege suñu borom taala gën a jaxasoo moom gën a seey ci moom waaw te ak ñaanam day matale mënoon nañ cee misaal waaye waxtu yi du ko maye waaye bu ñaanee ba noppi na koy tëjee ma boo diyee da cay feeñ naa ko misaal ci ak durru samin masalan ca mujj ga bu ñaanee ba ñaan nga jeex yaa rabbi wala yaa sayyidi inni daawtuka kama amartani bihi wa kuntal akrama فليستجب ولجميع المخلصين كما وعدتنا ونرجو كل حين واغفر ذنوبي وتقبل عملي noonu la ko toppee waaye ba àgg nag ci law lam takun akrama min kulli karim lama daawtuka wa innani laim lakinnani lamma gadawtu afqara min kulli di faqrin wa kunta aqdara min kulli qaadirin ataytu baabaka taq gi nga xam ne moo nekk ci man ci waxin rek moom dara taxu ko waaye dafa ne xeeb gi ma xeeb sama bopp ak taq geeg ñàkk gi ma ñàkk daal jàpp ne yelloonte naa di taxaw fi sa kanam daal xam gi ma xam ne yow yaa gën a baax ñépp gën a tabe ñëpp moo ma may fit woowu mu mën a taxaw fi sa kanam waaye yow bi nga nekkee di akramu min kulli karim man ma nekk di afqaru min kulli di faqrin ah, léegi loolu moo tax ma ma ñëw ci sa bunt bi wax ne ko nag fa in taruddani fa ma liya siwaak boo ma dàqee nag amuma feneen fu ma jëm ah, yow rek yaa fi ne diyaale googi moom nañ ci wax lu baree bari eh, diyaale yu baree bari la xam nga maanaam diyaale sax beneen bunt la fi ne ci ubudiyya mooy déyaale déyaale bokkut ak ñaan déyaale mooy jàmbat suñu borom sa bopp loolu sëñ bi ko daa def lu bare bare bare léeg-léeg mu ne naajaytuhu maay déyaale ak moom te naajaytuhu tanaajiyal xabiibi nag mooy déyaale ak man nag naajaytanii tanaajiyal qariibi man damay déyaale ak moom ci kaw ak cofeel waaye moom jege gi jege ci lay diyaaleeg man diyaale googu wax nañ ne daanañ ko gis mu julli gee toog fa di diyaaleeg suñu borom ba fajar sëñ Moodu xëri sill nett la ne gis na sëriñ bi mu julli gee toog sol lu weex tàll jublu penku tàllal ay loxoom ba njël ba fajar mu doog a jóg xësir yu bari ci la ko defee nga xam ne ubóodee da koy feeñ lu mel ne matlabul maqaral asna joxe naa ko misaal ba tey gis mu wax ne yaa sayyidi ana alfaqiru alfaani wa innani alabdu alxaqiru aljaani ana allaimu albaisu almiskinu ana aldaifu aljahilu almadinu ana alkasulu alaajisu alsaimu ana albalidu almujrimu almulimu ana alakulu wa ana albattaalu wa innani alnaimu walqawaalu noonu la ko toppee waaw ah. léeg-léeg nga gis ci biir diyaale gi muy jox léppam lu mu jox suñu borom xeeb ko laka kalkali laka jussati laka niyati laka gurbati wa mawatini walmanzilu laka malbasi wa yaraati maa lawxiha wa laka almidaadu wa mashrabi walmaakalu en desitu dara moom jox naa la xol bi jox naa la jëmm ji jox tukki bii may tukki jox naa la ko des bi bu ma itam lépp jox naa la ko bërëb yi jox naa la ko réew mi jox naa la ko col gi jox naa la ko xalima yi jox naa la ko daaj yi jox naa la ko xéewal yi añ bi reer bi jox naa la ko wa mashrab yi wala kal midaadu wa mashrab yi wala maakal te diyaale googu xaalu ridaa da ci feeñ gis ngeen bi muy dem ci géej gi ndax ne moom loolu moom ko koo xam dañ lay waajal yow war laa yóbbu nga am jafe-jafe nguurug réew mi bu doon keneen moom jeneen yitte ngay am waaye xasida gam ca def ba muy dem xasida ak sant yàlla la te mooy asiru ma al abraari xiina asiru wa danna al ida anni hunaka asiru ca biir xasida ga wax ne xusóor yi xalat wal ahlu an nii tafarraqan ma nekk sama kër yëpp da nga wéet na tey sama njaboot gépp tasaaro nañ waaye dajaa daal teg ne xaruurul wara xarra nasaara bi kaydihi wa dannu dunuunan wa dunuunu xuróor maanaam seytaane moo nax tubaab yi ñu jàpp ay jàpp yoo xam dara amu ca waaye bayit wa ca topp rek daa daal di wax ne li rabbil tifaati laa lahu ma delluwaat naa ci suñu borom tabaraka wa taala taiban lahu min aldambi wal afaati wa huwa gafuru lahu tubtu min aybi iltifaati li gayrihi taxaw gi ma taxaw di wax naan kii def ak kii difut iltifaat boobu ne maa koy tuub wa minni lahu ahdun alayya damiru ne su mu ne fujitu bi bisirin minhu abri shukurahu wa fil qalbi min ridwanihi ma ukinnahu maanaam déyaale koo xam ne xasida yooyu kenn mënu koo tekki moom ay cafkaa ci ne yoo xam ne cafkay ubóode yoo xam ne kenn mënu koo misaal bokk na ci lii mandargal ubóode googu mooy tuub gi mu doon tuub waxtu di dellu suñu borom tuubtu ilaykal aana faghfir dambi bihi loolu am na xasida yoo xam ne tuub kese la mel ne tuxfatul awwaax nga xam ne da cee taxmiis xasida ak Cheikh Abou Madiane al Xaws ga mu xasida gu wa baadu fal qalbu minni lyowma du alami min kathrati dambi wal aafaati wal gumami fa qultu daa tawbatin lillahi min nadami astagfirullaha mujri lfulki fi ddulami ala ubaabi min altayaari muntatimi jismi daifun li asqaamin taxullu bihi wa baana durri wa qalbi gayru muntabi fa qultu mustagfiran rabban aluudu bihi astagfirullaha munji lmustajiiri bihi ida alamma bihi durru min alalami kaadat tarinu ala qalbi dunuubi wa an xawfin wa nuuri lhuda aaqadahu kulla zaman fa qultu طالب فقمت طالب غفران الغفور إذا أستغفر الله غفار الذنوب لمن بالانكسار أتى والذل والندم noonu la ko topp muy xasida bu yéemu ci jéggalu suñu borom tabaaraka wa taala nekkoon koo xam ne waxtu ne daa gaaw ci delluwaat ci boromam loolu ci mazaahiru ubudiya la bokk moom ci moom nettali na boom ne ca géej ga am na bis mu am benn tubaab boo xam dafa am lu mu diggoon beneen waay te jox ko ko te fekk sëriñ bi nee na man mii sax tubaab boobu digg na ma loolu mooy ab ab pot la waaw boo xam ne day def day def euh, day def lat koreñ waaye nee na kee da koo dig mu acca yaakaaram te man man bayuma xel sax digg mu ko de nee na xuloo gi ñuy xuloo rek ñoom ñaar ci sama wet dama cee delluwaate ci suñu borom xam ne suñu borom rek moo mat a yaakaar rek moo mat a wéeru fasaasi nee na ci laa tàmbali xasida gi ala inna nii ala xayri munimi wala ashtaki lil xalqi min faqdi anumi fa man fi gurbati daa tadallulin ila gayri mugnin waasiin fa huwa ami lahu ashtaki dufi wa faqri wa gurbati wa arju rujuci aajilan xayra munami shakawtu lahu ajizi fa ashka wa kaana lii bi ma faaqa danni fa huwa akramu mukrimi mooy suñu borom kese laa wéeru ci moom moom rek laay jàmbat sama doyadi ak sama ñàkk ak sama tumuranke zullul ubudiya itam xam nga ubóode dafa am zull boo xam ne maa ngi ko doon boo xam ni moom moo gën a neex ci ci nit yàlla yi loolu yi sëñ gis moom da saxoon moom zull boobu maanaam yi ñuy wax yëpp loolu lay tegtale te wax mooy li wax ne zulliya lil fardi alladi lam yalidi wakkiirlu ci suñu borom itam nga xam ne moom waxtu ne dafa bàyyee boppam ak suñu borom anta wakiili fa alayka attakil nga xam ne dafa wax ne man damaa doyloo suñu borom wéeru bi ma ci wéeru ci moom daa doy daa damaa doy sëkk antal wakiilu ladi qad iktafaytu bihi ci njëlbéenam yi dajale daje woon nañ bëgg koo boole buur bi mooy leen qaalu li yarkan li abwaabi salaatini taxus jawaisa tuxni kulla ma xiin fa qultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi daje nañ wax ne daal boo àndee buur bi da nga am lii da am laa ma ne leen ah man kat xasbiya rabbi yàlla doy na ma sëkk walastu raadiya gayra al ilmi moom daa bàyyi woon suñu borom boppam di ko wax ne ko loo jëfandikoo ci man rek neex na ma suñu tubaab muy xam dara naqari wu ko fi ne lu xew day xam day jàpp ne suñu borom a ko def wax ne laa shakka anna kulla ma adxaltani fihi fa xayrun liya yaa dal minani wa kulla ma axrajtani minhu fa daaka alayya durrun yaa rabbi in aataytani fa shukru wa in manaata faridan wa sabru ngir gën a kii ta waxtu wi ñu ñu féetal léppam bokk boromam subhaanahu wa taala itam waaw nga xam ne nga xam ne lahu ufawwidu amri haahuna wa gadan waaw doyloo suñu borom defoon ko muy takaam tataam inni ko fi daareni yaa fiqati xisnan xasinan fa kun mal jaaye yallaahu mësta jàmbat ku may boromam itam moom rek dara jëflanteel ñu ñëw ci ubóo ubóodatu ubóodatu mooy moo gën a moo gën a xóot moo gën a sell mu gën a kawe mu gën a màgg mu gën a sew itam te mooy gërëmloo suñu borom goo xam ni day dem ci dayoo di sàkku ngërëmam nga xam ne moom dara wax ne man mënumaa jengati jëm ci lenn loo xam ne du gërëmloo suñu borom lastu amiru li si waa maa yurdi rabba samawati wa rabbal ard nga xam ne dara wax ne adxaltu nafsi fii ma anta raadiya lii fakk fi nii kulle maa yufni ilal madani dama jël sama bopp tàbbal ko ci biir lu lay gërëm loo fa su ma yéenee def lenn loo xam ne dana jiyóg luy maye sa ngërëm yasuumu kulli an shiwaari daam sama lépp daa maase woor ci bàyyi lépp lu may lu may gërëmal su lu gërëm loo suñu borom daa sax ne euh, bal xaajati irdaa udil arsil alim sama yitte jenn la mooy sàkku ngërëmul suñu borom tabaaraka wa taala léeg sax mu ne maa ngi tàmbuli mbir mi waaye sharaatu fi irdaai rabbi naasi waaw moo tax muy jëmm joo xam ne mosul a jàmbat moom sax nettali na moom sëriñ bu mag bi li ba mu nekkee ca géej ga daa am jamono mu nekk ci bërëb boo xam ne yàgg na fa te boobu àll bi dara waru ko moom ci wax na ne bërëb bi mu nekkoon bërëb la boo xam ne dara waru ko am na fu mu ko nettali wax ne dara waru ko nee na ba mu fa yàggee nag dem ba mel ne bakkanam daal xaw a mel ne lu nar mbir mi xaw a naqar ji moom nee na façage suñu borom yabalal ma ay xeeti xorandoom yoo xam ne daal ni ñu doy waar ci mën a sam ko nag nee de sëñ moom bu ko dara dee matt ko faxas wax ne néegam yooyu nga xam daa am li ñuy wax ay fel am na kooku masalaaj ndax maa lu tax daal moom fel yi dañ ko daa sam ba doo gisati lu bokk ci jëmm ji fi ne waaye li tax daw ko dàq dawu leen fal da xam ne diggante bi ngay wëlba ci kii bëgg koo bëgg koo bëgg koo faxas sa xel mën naa dem ci lu may yàlla kooku te loolu lay bañ wax na ne fi ne ci ma joxe ci misaal rek benn bis nee na dama defar samay sama jàkka joo xam ne ñeent bant la foofee ca Gabon nee na ki jiite camp bi ñëw fekk ma fi ma ne jaxase bant yi sànni ko fële ne fii jàkk amu fi bul yàq soldaas nee na ku ñu wax yelli say ñëw yelli say ñëw di xulóog moom ci loolu ne ko bàyyi ko moom bunt bunt fi mu ko def nii jotuwut ak kenn dara ñu tam di jàppante neen saan ba timis waaye nee na fii ñuy wax nee na dama daal di tàmbali rek di way xasida goo xam ne maa ngi ko tënkee rabbana axrijna min hadihi alqaryati alzalimi ahluha mooy raditu an il mawla taala alladi rabba fuaadi wa agnaani wa akrim bihi rabba maanaam xasida gi xasida gërëm suñu borom la tabaraka wa taala doon koo xam daal dëgmal suñu borom ci lépp man lépp ma maase dëgmal suñu borom tabaraka wa taala wax ne man sama jëmm dama ko jël jëmmale kook suñu borom rek wajjahtu wajhiya lahu wal qalbu munkasirun wajjahtu wajhi lahu wal qalbu munkasirun abdan lahu fi ixtiraabi thumma fi daari wax na loolu wax na ko ba tey mu fees xasida day moom wajjahtu wajhi jaahilan faqira lillahi abdan xaadiman xaqira wala waxi ubodee jooju wax ne léppam moom dëgg dëggmal suñu borom tabaraka wa taala daa wéeru ci moom yaakaar ko jàppoon ne kenn wërta yaakaar keneen ku may suñu borom daa rajaun li siwaaka wujjiha yaa xayra man rajaahu man tawajjaha dawuta a ges nanguwut a gestu itam leneen lu mooy suñu borom daa muslu sax ci gestu leneen ab doxam it jëm ci suñu borom it moom day wax ne foo ma gis may dem rek ci suñu borom laa jëm asiru ila dil barri wal baxri aabidan wa lastu ila al fujjaari awdu borom rek cër la jëm waaye dox boobu nag dox bu yéemu la boo xam ni mooy lu mel li wax ne fa qumtu majzuban ilayka minka bika alayka xam nga dox boobu génnut suñu borom tabaaraka wa taala ba ni mu àggee nag wax waaye ba mu àggee gis nga waxin waxin ubudi ubudatu la itam ba tey ak ubudi mooy jiitu ka xumran mudniban kasuula daa tawbatin laka fahab li suula jiitu ka kay akuna min ibadika munsalixan min nii wa min aadaika waaw bay lépp ak si fi yow Sëñ Tuubaa mooy koo xam ni lépp da ko daa askan suñu borom dawul nangoo moom dara dara wax ne man wa huwa taala quwati wa xawli pexe ak kattan ak man-man loolu suñu borom moom ca la dellu te mooy samay pexe mooy sama kattan moo tax léppam da ko bàyyi woon ak suñu borom kulliyati jaaltuha lillahi wadiatan wax na ba tàyyi ne jox naa ko sama lépp loolu moom bari na lool ci mbindam ataytuhu kulliyati bila nizaa jox naa ko sama lépp te du ma ci xëccoo dara lillaahi kulliyati abdan lahu abadan lakat dëhra yaa baaqi bila miryatin kulli léppam da koo joxoon suñu borom aslamtu itam gis nga da nga koy gis ma aslamtu mooy damaa jébbal sama lépp aslamtu kulli li rabbin labtidaa lahu aslamtu kulli li rabbin jalla an waladin aslamtu kulli li rabbin jalla an ba tax na geesu nee na ak dëgmal suñu borom rek laa ko def lakaltifaati wa iqbaali bila madadin tu ma tay mukk léppam ba ba ci cëri boppam sax léeg mu di ko lim di ko jox suñu borom léeg-léeg mu ne sama dund suñu borom moo moo ko yor moo ko moom laa ko jébbal léeg-léeg mu ne sama ruux lillahi rabbil alamina ruuxi ilayka qalbi wa jusmaani kadaaka yadi laka jaaltuka yaa xafidu nafsi wa maanaam nga xam ne léppam da koy lim benn par benn di ko jox suñu borom tabaraka wa taala ba ci ay waxam lahu kalaami wa lahu iqbaali wàqante itam nee na moom rek laa koy defal lahu xitaabi kulla shahrin wa sana samam xelit moo moo moom laa ko jox lil mutakallimi saraftu aqli fikri wa qawli wa amali ila albaari samay xalaat ak samay jëf ak lépp xawaatir yi itam mooy yi ciy rotit ci moom laa koy delloo lahu xawaatir yi lahu anfaas yi pas-pas yi ma am ak jëf yeeg jaamu yàlla gi lépp it nee na moom laa koy delloo laka aqaidi ya maa al aqwaali laka aqaidi maa al aqwaali wa jumlat al afaali wal aqwaali wal ahwaali ba lahu dëhra niyaati wa ilmi wa xidmati wa ruuxi wa jusmaani wa kulli bila sukli léppam daf koo joxoon xam-xam yeeg bayutoon dara ba ci sax yi nga xam ne ay maanaa lu mel ne ak ñàkk nga xam ne sama ñàkkit moom laa ko jox faqri ilal waasii al gafaari dul qadari ci moom rek lay jëm dem ak dikk lahu dhahaabi wa bihi rujuu'i sama dem ci moom la aju sama dellu si itam ci moom la aju inna dhahaabi wa iya wa iyaabi minhu lahu wa innani wa inni qad raditu qad raditu anhu lahu irtixaali wa ilayhi sakani moom mooy koo xam ne musta sàkko ci kenn lu may suñu borom ci kenn lenn lu may suñu borom ndax jàpp na ne keneen moomu dara ku may yàlla ba muy dem ca géej ga yi njàmbur yi daje nañ foofee ca ndar sëñ mën la mu jëw danga ne nettali na ko bëggoon dox tànk jàmm ci diggam ak tubaab bi waaye nee na sëñ joom moo leen nettali ne leen dama leen wax ne xallu bayni wa bayna rabbi wa huwa arafu bii ko yéen daal am ngeen jaaraama dem leen toog rek te ngeen bàyyi sama digg sama borom moom bu leen ci jéem dara di jéem a soppandiku ndax yàlla ndax yàlla moo ma gën a yërëm ci yéen te gis na li ma nekk gis nga suñu borom la dëkk bi njëkk sanc mooy daaru salaam waaw Tuubaa am réew waaye dëkk yi fi ne ci biir mooy daarul Quddoos ak daarul alimul xabiir daarul mannaan dégg nga daarul rahmaan daarul karim daarul muati daarul qadim da daar yëpp suñ suñ a ko moom léppam da koo te yemul ci mbiri boppam waaye masalan tey jaam ñeeg lañ am lépp day wax ne moom moo ko moom suñu borom lahul baraya lahu afaaluhum wa lahu jëllal wujudu alladi qad zaanahu qidamu lahu lsamawatu wal arduuna wa ma baynahuma lahu taala al arsu wal kursiyu laka ilahi l mulku mithla al malakut lépp day xam ne moo ko moom nungul keneen moom leneen buur yi nekk ñu jàpp ne am nañ luñ moom dara wax ne lahul muluku wa lahul atbaaw buur yeeg ña ngi jàpp ne ñoo leen irif ñu ñëpp yàlla leen moom waaye loolu téewul li ko yàlla sant mu war koo def moom da koy def jotuwuñu woon dara waaye day wax ne itam li may def itam ci moom laa koy jëlee itam axasu maa aw jëbta aw nadibta alayya yaa mukarriman xarrabta waaw nga xam ne lépp lu muy defit ci jëf yi da koy def ci kaw kattanuk suñu borom tabaraka wa taala tarku tadbiir itam tadbiir mooy jéem a wuti pexe ak lijjanti mbir loolu lépp da ko bàyyi woon ak suñu borom tabaraka wa taala daa wax ne xarajtu min tadbiri nafsiya liya ila alladi dabbartahu li ya rabbiya dama bàyyi sama lijjanti bopp dem ci sab lijjanti yow loo ma defar rek mu neex ma léeg-léeg sax moom xasida koo xam ne wax ne bi dil xasidati taraktu jëlba fi ne bàyyi naa ñoddi nag ñaan dara xëcc len fi ne ñaan yëpp ñaanu ubodiya la du ñaanu bëgg daray adduna wala leneen lu may suñu borom tabaraka wa taala ndax dara wax ne fa ma ilaya suqtahu fa shukru fa shukran wa maa xabasta faridan wa sabra loo ma jox rek ma sant loo ma joxutit ma xam ne loolu moo gën fi ne bi ñu ko waxee nan lañ lay ñaanal dafa ne da nga wax ne da ngeen may ñaanal li ma yàlla tànn rek mu jox ma ko qaada lahu lahu maxtaarahu lahu moom moo tax mu di suñu lañ mbàkke mu baax moom ko noonu qaada lahu lahu maxtaarahu lahu mooy li ko yàlla tànnal yàlla na ko jox mooy koo xam ni lépp da ko daa askan ci suñu borom tabaaraka wa taala lim amal boppam xam nga ku ne xam na ne moom coono bi mu def ci jaamu yàlla ak dëgmal suñu borom nabbahtukum maan ala kaddin badali qabla an ara ridan mu abada coono bu ne daj na ko loolu ne daj na ko waaye teewut loolu yi mu daa def lépp day wax ne da koy delaat suñu borom sabartani maanaam muñ gi muñ lépp lu xaraam bu doon keneen mën naa jàpp ne moom ci man-mani boppam la la muñee ba deful lu xaraam waaye da wax ne sabartani anil xaraami qablu wa fitnatu nnaasi maxat wal kablu sabartani an kulli makruhin lada kawni gariban sabartani an kulli ma la yanfacu min almubaxaati sabartani ala imtithaali amrika qaharta li nafsi qaharta li hawaay nga xam ne moom lépp da koy delloo ci suñu borom tabaaraka wa taala wér gi yaram sax bu ko amee day wax ne asaxani yowma thulathi al ahadi al yowma thulathayi al ahad asaxani yowma thulathayi suñu borom mi nga xam ne kenn la jox na mu wér yaram tey ci bisu altine bi bisu talaata bi waaw taxliya ak taxliya yëpp gis nga da koy delluwaat suñu borom ba ci dëddu gi dëddu adduna day wax ne allamani llahu bi anna dunya faniyatun suñu borom moo ma xamal ne adduna amul solo moo tax ma bàyyi ko làkku arab bi nga xam ne nag da ko xereñoon gën koo xereñe sax gis nga lépp da ko daa suñu borom ni suñu borom moo ma ko xamal allamani nahwa maa al arudi man qaada lil adama fi qaridi maddaliy al bayaana bil maani dul maanawiyati nga xam ne tey moo ci gënoon a ñëpp ndax moom mazahib yëpp la géeju woon gis nga tegu da koy delloo ci suñu borom warastani fiq al imam malik li ma am ci fiqu malik ci ndono te keneen amu ko ca loolu sama waxi bopp la loolu da nga xam ne yow yaa ma ko yaa ma ko yaa ma ko jox waaw nafaatani li kunta bil manaafi lépp ba ci mucc gi mucc ak jaar gi jaar ak ñi ko topp ci bëgg leen a musal loolu it da xam ne ci ci suñu borom la amee najaati wa in jaayi wa xawsi istiqaamatan uxaawiruha billahi moo tax mu àggoon nag ci seey ci suñu borom seey léppam ci suñu borom ribtu anil muluki min loolu la ñu ko naa ci suñu borom fàddu naa wuris buur yëpp waaye léeg-léeg mu ne fàddu naa ribtu anil akwaani fil mukawwini loolu it mënoon nañu ci wax lu baree baree bari nee na suñu borom moo moo ma jël seeyal ma ci biir boppam loolu nag wax wax wax am na maanaam moo xam ne mu leer la mu dëpp ak tawxiid bu ko kenn jéem a sikk nag waaye li ma xam ne xëyyaba nil badiu fi l badii xam nga gis nga ci alxuraan nga gis ne wa ma ramayta is ramayta walakin allaaha rama allaahu rama te rasul lay lañ gis mu sànni yadullahi fa yubaayi inna alladina yubaayiunaka innama waxul ka annama innama yubaayiunaka maanaa yu mel noonu rek lay jëm moo tax mu mësul a gis keneen ku may suñu borom léeg-léeg mu ne huwa alladi lam ara gayrahu wala arahu fi cheyin mbir menn mbir moo xam danaa ci gis keneen ku may suñu borom amul waaye léeg mu ne léeg fii googu mu dind ko ci wax ne las ana lam ara lu ma ne anta alladi lastu ara siwaaka léeg mu ne lam ara gayraka wala arahu huwa alladi lam ara gayrahu wala nga xam ne suñu borom rek lay bàyyi xel moom lay jëflante kon loolu mooy topp tomb ñaareel bi ñu ñëw ci ñetteel bi muy mahabba bi cofeel googu xam naa du du xaj Sëñ Tuubaa mooy koo xam ni bëgg gi bëgg suñu borom moom dañ ko ko mooñaale lool la Sëñ Basiiru wax koo xam ni ba mu demagut li ñuy wax daara la tàmbalee def xiyaamu leeli te xiyaamu leeli moom ñi bëgg yàlla rek ñoo koy def suñ Sëñ Basiiru nee na ba mu xamee ne mooy yàlla dalay soreele suñ borom nee na moo tax ba mu feeñee rek daa muñ lépp loo xam ni daa xeetoog mooy yàlla ak juróom ndigalul suñu borom tabaaraka wa taala moom ci wax na ne ba mu feeñee ba niñ ko noppee gisee mësula sàkk lu may suñu borom walam azal mundu aqaltu taaliba maarifatin billahi ba ma xelloo ba léegi suñu borom rek laay jéem a xam fa jultu bayna al ulama wal awliya bi niyati wa amali wa qawliya wax na itam ne cofeel sawq mooy namm suñ borom xam nga ki nga bëgg te bëgg wér sa yitte jëpp mooy dem fi moom shawq boobu yi nag wax na ko ba tàyyi ci biir xasida yi gi ma am suñu borom wax ne shawqi liman garbun lahu wa sharqu muti alladi fihi rida wal xawf shawqi wa wuddi wa mahabbati maa liman jalaalan wa jamaalan jamaa maanaam cofeel ak shawq boobu ak max ak bëgg moom suñu borom rekk laa ko def wajjahtu kulliya daa qurbin min allaahi xillan wa xibban wala shawqin ila allaahi wa tax mës la jeng jëm ci keneen ku may suñu borom tabaraka wa taala huwa alladi lastu li wax ne sunu borom tabaraka wa taala moom rek laay dàkk moom rek laa doyloo itam ku may jàpp ci moom laa lay jàppe bihi uaadi wa bihi uwaali ku may bëgg bëggit mooy tax ma bëgg la xubbiya fillaahi wa buxdi fii ñaan na ba tey suñu borom nag may ko xam nga bëgg boo kenn ku ne mën naa am dëgëru fit ne man kat bëgg naa yàlla waaye moom dañu gis muy ñaan suñu borom ngir mu may ko cofeel googu ndax cofeel googu du lu yomb bëgg yàlla du lu du yomb loolu ñaan na ko ba tey waliya hëpp kaw nii xabiballaahi loolu wax na ko ba tey ba ni ko suñu boroom nag maye cofeel goog yi mu di ko dund di wax ne man fi ne suñ borom wommat gi may wommat xëcc gi may xëcc népp ci kaw cofeel la tege yaquudu nii lillaahi xubbun wa jamaal waaw cofeel ak jamaal moom la ma suñu boroom li tawféexal ma ciy dox mooy sama dox wax ne sama cofeel gépp sama bëgg gépp ci suñu borom lay dellu xubbi lahu fi sirri wal jihaari loolu wax na ci lu bare bare bare wax na mooy diineem itam diiniya xubbu man ilayna ahmada arsala xaamida diiniya xubbullaahi ma xubbi ladil ida jama ida qamaa loolu wax na ci lu bare bare wax itam jaamu gi yàlla ci kaw ak cofeel la teg yaa xayra maabudin bi na ba tey ahbabtu rabbal alamin maanaam maxaani yooyu moo fees dell xasida yi mooy bëgg naa suñu borom léeg-léeg mu njëkk gi man de bëgg naa suñu borom waaye léeg-léeg mu ne bëgg gi ma ko bëgg rek du bëgg eh, ku man koo jëgg de bëgg de maanaam bëgg gu woyof de ahbabtuhu xubba alladi koo xam daa xam suñu borom xam dëgg-dëggam kookee maanaam bëgg googi nee na moom moom la ma suñu borom tawfeexal moo tax bi wax ne man kon li ma am doy na ma sëkk fustu bi xubbihim wa inni muktafin billaahi fal muta kafaafan yaktafi dina am naa lu doy sëkk daal naa ci yepp ndax suñu borom dama koo doyloo ndax moom rek moom laa bëgg mooy sama jubluwaay itam mooy sama xemmemteef gis nga xasida yi léeg nga gis wala ba ci téere xam-xam yi wa baadu fal qaradu wajhullaahi wax ne wax ne suñu borom rek mooy jubluwaayam wax ne moo gën a yaay ci man waaw léeg sax mu àgg ci giñ ne suñu borom moom laa gën a bëgg ci lépp yamiinu rabbiya inna rabbiya ahab lii min siwaahu wa na di ahab te dama giñ ci yàlla ne man de yàlla de moom dama ko bëgg moom mu daal moom a gën a lépp moom la gën a sopp ci lépp ginnaaw ba nag rasulullah yi moom la gën a sopp ci mi def léeg-léeg mu ne wallaahi inni xillun lil ilahi bihi xibbun lahu duna kasbin fiihi ajrahu moom day jëmm joo xam ni sëñ Basiru nettali na ne am na benn tubaab bu ma sa nekk moom fii ci am lu mu bëggoon ci moom di ko ca dig nag ne ko nag boo ma ko defalee dinaa fexe bañ woye falal la naa nga am sa dëkk bee ca Touba wax a wax ba àggal sëñ bi ne ko ayuha rajulu utlub ma tatlub yaa man fii nafsi xaajatun yuridu qadaaha ginnaaw mu ne ko fa inni maa ahbabtu shay'an gayra allahi tabaraka wa taala min yowmi aqaltu ila mawqifi hada waqad xasaltu alayhi kama uhibbu wa axda ne ko yow ginnaaw da nga amee yittee ki aajo ak i jafe-jafe yow sàkkul li nga li ngay sàkku rek ma dimbale la ma ca man <laughs> waaye man ba ma xelloo ba fii may waxee yow mosuma bëgg lenn lu ma yàlla ne ko nag fii ne nag am naa ci lu doy sëkk nag ci suñu borom moom loolu ci njëriñ lool moo tax dara wax ne moom karaamaam genn la mooy bëgg gi mu bëgg suñu borom karaamati xubbul ilaahi wax na ko ba tey karaamati xubbul ilaahi wan nabi daw danaa wax ne suñu borom du ko jëndeeg dara laa usriku dëhra bi rabbiya wala abri bi xayril aalamina badala waaw waaw wala abri bi rabbil aalamina boog badala du ko jëndeeg dara du ko wotteeg lenn itam laa abtari bi dil jalaani iwadan wax na ko waaye dara wax ne fi ne man kenn rek moo ma moo ma téye ci loxo moo ma jàpp fi ne tubaab yi jàpp ne dañ ko téye woon day wax ne ñoom dañoo xamut dalla alladi qad dannani asira gayra alladi yusirul asira man kenn rek moo ma jàpp muy sunu borom tabaaraka wa taala ñoom damaa nekk ak ñoom rek waaye séquma ak ñoom dara léegi sax mu wax ne ñoom sax nekkuma ak ñoom alimatil aadaaw anni indaka laa indahum busharatan li jundika tubaab yi xam nañ sax ne man dama faa rek waaye nekkuma ak ñoom suñu borom laa nekkal loolu yi sax léeg-léeg wax mu ñaan suñu borom ne ko nag ma ko xamalal tubaab yi ba ñu xam ne man nekkuma ak ñoom wa allimil aadaa anni indaka laa indahum busharatan washhad liyal yawma bi anni indaka allimatil aadaa anni indahu loolu wax na ko ba tey loolu yëmu ci tubaab yi waaye ñu baax ñi sax day wax ne ali allamta mu ne ko maanaam léeg da ko doon ñaan ngir suñu borom xamal tubaab yi ne leen kat kii ñu ngi fi yéen waaye man la nekkal waaye dem na ba ne allamta aadaaka anni xabibu laka xalilun daa ginan an tabib waaw kon noonu la deme woon nga xam ne daa génnoon ci lépp lu may suñu borom tabaaraka wa taala bëgg suñu borom jeex ci moom seey ci moom lépp loo xam ne day yokk bëgg yàlla mu di ca def kem kàttanam jàppoon ne jëmmi suñu borom moom daa jàpp ne xéewal la goo xam ne maanaam yàlla nekk gi nekk di yàlla léeg-léeg mu sant ci am gi suñu borom am maanaam ak nekk gi mu fi ne di yàlla léeg-léeg mu ne alhamdulillahi ala al wujudi xillan wa xibban faaza bi tamjid bi tamjid nga xam ne nu mu it kenn umpale bëgg gi mu bëgg suñu borom tabaaraka wa taala wax ne ñëpp a ko xam te ñëpp a ko war a xam itam danaa wax ne fàddu gi ma fàddu ci suñu borom it fàddu cofeel la xam ku ku bëgg ko musu dara ci bëgg yàlla mënoo xam xeetu fàddu googu da wax ne ribtu ila ilallaahi min al arbaabi wa li muhammadin ma al aqtaabi gaybubatal xubbi gaybubatal xubbi maanaam fàddu cofeel la àgg na ci wax ne man dama lab ci bëgg suñu borom tabaaraka wa taala gariqtu fi baxri mahabbatil jalil maanaam bëgg suñu borom ak géej la gaa ñi sax ci ak géej lañ koy misaal dañ ci ñëw ci kanam xam naan ne incha allah maanaam lim daa joor waxtu ne nga xam ne moo ko gën a neex ciy waxam nga day wax ne sama léppay maase di ko wax mooy yaqulu kullillahu rabbi sarmadan sama lépp day maase wax ne allahu rabbi sarmadan abadtuhu daa xidmatin li ahmada nga xam ne ci njëlbeenam ñi nga xam ne ñoom la dundaloon te xamuñu ko dafa wax ne ñoom li tax ñu jàppe ma ku ënt ak sago sagom mooy bëgg gi ma bëgg suñu borom rek xaalu safihun li xubbi xaaliqi maliki ndax man daa ne suñu borom ci fu ñu ko ak dal ak jàmm moo moom rek laa mën a nekkal mënumaa nekk ak keneen lëkk fu aadi yaa ilaahi xam ne dawul nongu ku taqal dara lu dul noona ci suñu borom loolu moom wax na ne ba tàyyi ne dababtu an xadratihi l xadraam bu sell bi pakk bi nga xam ne dara du ma romb di agsi fi moom dababtu li gayrillaahi maa lam yaliq bihi dababtu an xadrati rabbi mudda bi faydihi alladi li misaal qul huwa allahu ahad kuy jàng xasida seetlu nga mu di ko tudd lu bare bare bare qul huwa allahu ahad dafa am li buxaari nat li ak muslim ne dafa am koo xam ni danaa def ci tukki danaa jàng xul waloo axad rek saaru suratul ixlaas saxaaba ñëw wax ko yonente bi ne ko moom de xul waloo xul waloo axad lay jullee yonente bi woo waaje ne ko waaw lu tax nga koy jullee doo jull te doo jullee leneen mu ne mu ne ko xul de day sifatu rahman wa ana uhibbu an aqraa biha dama bëgg di ko jàng ndax lim nekk di melaw suñ borom tabaraka wa taala te suñ bo yonente bi da ko saxal ci loole li wax nañ ci xadis bu amee wax ne yahudi bi ñu ko waxee ne ko sif lanaa rabbaka melal la nu suñ borom nee na ca la suuratul ixlaas wàcc qul huwa allahu ahad suñ mag bi nag dangay gis qul huwa allahu ahad moom mel ni mooy léppam moom léeg xasaa yi di tawxiid yi nga xam ne moom lay moom lay tëgg ak liggéey day wax ne ci qul huwa allahu ahad laa koy defee zintu bi sirri qul huwa allahu ahad xasaa ida tawxiid teraanga yi ko suñu borom di joxe itam di wax ne ci sir ci alxuraan ci ci xul huwa ko joxe akramani bi xul huwa allahu ahad wala teralen na ma xul huwa akramtani bi xul huwa allahu ahad li ko suñu borom di jox lépp léeg-léeg mu ne ci xul huwa allahu ahad la ko joxe <laughs> nga xam ne xul huwa allahu moom da koo neexoon moom am na saxaab yi boo xam wax nañ ne daa bëgg xul huwa allahu ahad ba mujj yónte bi ñëw ne ko ah, jibril nuyu na la mu jooy ndeysaan ne ko waaw ah, jibril fu ma war a xam ba may nuyu mu ne ko dalaa sopp ngir li nga bëgg xul huwa la ahad waaye gis Sëñ Tuubaa moom léppam xul huwa la ahad jaada bi tawxiidi rabbil ahad bi mus jaada lii bi xul huwa laahu ahad ndax ne tawxiid ci xul huwa laahu ahad laa ko laa nee na li mu xam itam te suñu xamal ko ko lépp nee na bi xul huwa laahu ahad laa ko amee allamtanii bi xul huwa laahu ahad yaa yéegi ko su borom yee itam dana ci ñëw léegi day wax ne ci xul huwa laahu ahad la amee nabbahani bi qul huwa allahu ahad bi annahu laysa lahu kufuwan ahad tuub gi muy tuub itam léeg-léeg mu ne tuubu lahu bi qul huwa allahu ahad léeg-léeg mu ne yaa rabbi qad aslamtu nafsi fi l ahad laka huna bi qul huwa allahu ahad jébbal gi mën a jébbal sama bopp bi qul huwa allahu ahad laa amee ahyaytani bi qul huwa allahu ahad waaw dund gi nga ma dundal wéral gi nga ma wéral itam ni yowma thulathaai l ahad muxtariban bi qul huwa allahu ahad mabb gi ma mabb tabax yéefar yi itam neen lépp ci xul huwa laahu ahad laa ko rek hadamtu maa lii banaahu man jaxat min dararin bi xul huwa laahu ahad dababtu anhu kulla mushrikin jaxat mujahidan jihaad yi itam nee na bi qul huwa allahu ahad xeex bi ma xeex ak ñoom itam uffin li qawmin thallasu llah al ahad qaataltuhum bi qul huwa allahu ahad ah, qul huwa allahu ahad nga xam ne moom ci lay defee lépp moom léeg-léeg mu ne malakani tawxid rabbil ahad mud kaana lii bi qul huwa allahu ahad kaana lii bi qul huwa allahu ahad abqaani bàyyi gi ko suñu borom def mu am baqaawu itam baqaa ginnaaw fanaabo bi nee na loolu ab xaytan bi qul huwa allahu ahad mooy jëmm joo xam ne suñu rek la xam qul huwa allahu wax ndax day sifatu rahmaan keroog bi ko buur bi wooloo sëñ mën la mi nettali na ne dafa wax ndaw la waxal amir bi ne ko waxal buur ba ne ko man de damaa rus sama tànk yi di ma di ma di ma di ma gàddu ma ciy dox di jëm ci beneen buur bu ma yàlla lal moo tee ma wuy si buur bi waaye buur daal moom mënuma ko dox mukk jëm ci buur ma gis loolu la rus naa ko suñ bésu neen mas naa wax taalibe yi ne leen koo ci xam ne adduna kii jii mooy sa yitte demal bàyyil ma fi daara ji koo ci xam ne demal bàyyil ma fi koo xam ne adduna ak alaxira sa yitte bàyyil ma fi daara ji koo ci xam ne yàlla kese mooy sa yitte na nga toog iradatu wajhi llahi mettit yi ko dal itam fi ne li muy metti nga xam ne nun saa buñ koy nett li day metti ci nun téewul fi ne moom maanaam yigu ko ngir ne ci suñu borom la ko la bàyyi ko xéewal la ko jàppe xam ngeen ne xen waxtu bi jeex na takk waaw moom mbirum sëñ bi diggante sëñ bi ak kii bi moom dara moom xajul ci am ab bis sax nag li ma ci dese yaakaar naa maanaam matul mosru li ma li ma indi woon kon loolu mooy gàttalu sëriñ bi nga xam ne moom dafa bëggoon suñu borom saxoon ci di ko tagg itam loolu bëggoon nañ ci indi ay misaal sax ci tagg yi mu tagg suñu boroom ak léeg-léeg mu dëgmal suñu borom ba mel ne lu fàtte yonente bi suñu borom fàttaliwaat ko ko ak bànneexu bi mu doon bànneexu ci tudd tudd suñu borom fi ne genn xasida dangay gis bu tuddee suñu borom ñaari biir ñett mu tuddaat ko ci misaal lu mel ne xasida ak nuuru daari ni dangay gis maanaam yallaahu yaa rahmaanu yaa rahimu yaa maliku yaa quddus yaa mukrim yaa fataxta baaba shukri lii wan xalaqa nes tuut mu ne yallaahu yaa rahmaanu yaa ya yaa maliku alhamdani waffaqtani nes tuut nga gisaat ne suñu borom moom ban da ko da ko moom di koo xam ni lim jëflanteeg suñu borom suñu borom fay na ko ca ba mat sëkk lépp lu aj ci suñu borom yi noonu la ko bëggoon daa bëggoon alquranul karim te wax ne li tax ma bëgg ko mooy jëmmi suñu borom bi moo tax li wajihil karimi ahbabtul kitab daa bëggoon itam weeru koor wi mu wàccoon uhibbuka hubba dhaati dha talabin inni uhibbuka hubba dhaati dha talabin daa bëggoon itam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir lim nekk ndawul suñu borom tabaraka wa taala diine ji itam noonu la ko bëggee woon néegi yàlla itam noonu la ko bëggee woon ay ndekkaanam yépp itam mooy dellu leen ci suñu borom rek tabaraka wa taala ba nim àggee nag ci suñu borom ba sës ci moom rek suñu borom fay ko pay koo xam ni eh, bis danañoo xëy na ñu waxtaane ci insha allah waaye ni ma koy misaale rek ci li ma li ma am ci waxtu xam nga li ko suñu borom fay am na ci loo xam ne moom ci moom wax sëñuma koo ko bind am na loo xam ne sëñ naa ko wax sëñ naa koo bind am na ci loo xam ne sëñ naa ko bind waaye sëñu ma koo wax tax na liñ ci liñ ci xam ak liñ jot a gis mu bind ko itam am na ci loo xam ne kenn ñi mu koo wax waaye misaal na ko misaalum moo xam ni day wane cofeel goog géejug cofeel koo yi nga xam ne nam ca naane ci misaal ci njëlbeen dañuy gis mu ne damaa mar ramitu wa jiitul baxra fil baxri xaaliba li ko indi ci géej gi nee na mooy saarifan himmati li rabit raajiyan saqiyahu dama bëgg ñu nàndal ma léeg-léeg mu ne nabasu ma qad kaan indiya bi ma ladayhi raajiyan zulaalan shabima ndox mu sell mii daal ndox mu cofeet nag ak leer yàlla yi ci laa ci laa ci laa bëgg léeg mu ne naan naa ci nag jox nañ ma ma ma min min miyaahi nuurillaahi waaye léeg-léeg mu ne nandal nañ may tam ñu ngi may jox nag waaw ñi koy jox day wuute ci misal rek saqaaniyal baatinu min miyaahi yi léeg mu ne al jox na ma ci ndox yi léeg-léeg mu ne saqaaniyal mugni saqaan léeg-léeg mu ne saqaani ilaahi saqiya baaqin musaxin turu yàlla ñu wax al baaqi léeg-léeg mu ne saqaani ilaahi saqiya mugnin saqaaniya rahmaanu wa shakuru xam ne day yi koy jox day wuute saqaaniya laahu nag wa rabbiya shahid waaye dafa xam ne léeg mu ne jox nañ ma tey naan goo xam ne nag dara melut ni moom saqaa saqaaniya suqyan lam yakun qattu mislahu léeg-léeg mu misaal ko ci kaas ne léegi jox nañ ma benn kaas kaas boobu mooy akramanillahu bi kaasil qawmi saqaani bi kaasil qawmi man nawwara alxijaab kaas bi gaa yi soxla jox nañ ma ci xam nga naanub cofeel daa am benn télé bi ma si ñëw ci sëriñam ne ko man de cofeel bu doon euh, naan naa cib bu fi ne moom mandi naa mu ne ko yow da man sharibtu lxubba kaasan baada kaasin fa ma nafida sharaabu ma trawet wa ma trawet <laughs> maa ngi kaas bu ba léegi ma te naan gi jeexul sëñ bi nag léeg-léeg jox nañ ma kaas boo xam ni mooy kaas yi gaañooñee waaye léeg mu ne beneen kaas hada walii kaasa xaybihi llaahu dëhëq kaasu xaybin kaas boo xam ne ndoxum rëy bu moo ca ne mu nekk kaas boo xam ne faydu moo ca ne nafaytu baatilan bi xaqin fa sahaq wal xaqu kësa faydihi lii dahaq léeg-léeg mu ne kësa bi moo ci ne wali ilaahi kësa xaqihi dahaq léeg mu ne min kësihi di xaqi léeg sax mu ne kaas yu bari lañ may joxandoo ma di ko naanandoo itam ci wenn jamono ku uusu ko tasqini biha ndox mi itam day wuute léeg-léeg mu ne saqaytani ma an bi xaybika iqtaran léeg-léeg mu ne saqaaniya alladi maxaayu min al fuyuudi mu ne saqaaniya alxabibu ma an mutlaqa léeg sax mu ne kat fi may nañ ma ma ñëw dëtam ci géej gi mooy kaas yi bay nañ ko léegi dama ñëw di dëtam ababtu wax na ko ba tey min fuyuudi ma il xayb ababtu min fuyuudi man lam yalidi ababtu min fuyuudihi wal faydu fii léeg-léeg ne ko nag léegi ginnaaw naan gi dëtëm gi moom yàgg na léegi dama bëgg nga nga gasal ma teen ci biir xol bi ci sama jëmm rek <laughs> fajjir yanaa bi ama il xëy bi fii xalal yi boobu nga dégg mu ne mbooleem kopp yi ma yoroon yëpp jox nañ duyal nañ ma ko léegi ba mu fees defukaay yi mbuus yi defukaay yëpp duyal nañ ma ko li ma wax ne alhamdulilahi alladi alladi yamlaw jumlata aqdaax yi waaye léeg-léeg ay ndab nag lañ ma duyal ndam yu rëy moom yoo xam ne moom kenn xamul tolluwaay ba waaw wa mala al jamilu lii xayra zuruuf waaw lele mujj nag wax ne kat nag fi ne am naa nag géej gu mag koo xam ne ci ci ci ndoxi gaay xawaytu zulalan saafiya léeg mu ne wali yanaabiu faydin axjala suxuba léeg mu ne wa fayduhu bi kulli sadri jaarin léeg-léeg mu ne axjala xabla mu ngoog mujj na mu ne mënatuma màndi naa mujj na mu weesu géej yépp wax ne jusutul buxuura riidali man maana mujj mu di géej ba waaja ne ko Cheikh Mouhamed Damin As-Sirkiti ne ko qataatu ilayka al-baxra wal-baxru anta hu maa ngi jégalu baax wa salaamu aleykum wa rahmatullah Thank you. waxtaan bi xam nga seen seen waa seen ci borom

ci yàlla la mooy bu jeex ci borom bu tàkk koo xam ne ñun dañu bépp ci yàlla la ñu kon jërëjëf si yàlla da nga yàlla ko fay daal yi te ñëw na ko tamit ma ne kàpp